gars yi avancé leen nit ñi ñu gis li ñuy def

daal ngi waaj parce que xam nga kuy dem guerre nag wax dëgg yàlla doo wax sa arme te nag wax dëgg yàlla maanaam comme dañoo seex saaxamee ñi ngi sa ñi ngi waaj ñi ngi ñaan yàlla saaxami ko war na ko jàmm wax dëgg yàlla loolu lañ mën a wax kéwal nee xam nga loolu man tuddee ma ko sama bopp bi may ñëw yaa ko wax léegi yaa ne Tidiane lañ ma tuddee waaw kon preuve bi ma def ba def na noonu loolu moom bu ko bu ko bu ko moom bu ko gisul moom bis boobu mun na mun na am mbetteel sax si loolu noonu muy wax. drapeau waaw dañ koy ñaanal rek dañ koy ñaanal bu baax a baax parce que topp na ànd ak ànd ak ay rakam ànd ak ay rakam bi làmb di ngoo tey ñëpp xaaju promoteur yëpp daanaka amul am loo xam te ne neexu leen ba tax ñu bàyyi làmb gisul sponsor sponsor yëpp daw moom lañ fi gis mu taxaw ànd ak ay rakam kon sant nañ bu baax bañ ko bañ ba dee bëre bëre combat drapeau ci wàllu mobilisation bi wax ak say supporters wax ak supporteru Kewel yi naka ngeen fas yéene ñëwee stade bëri ci fair play que le ku ci nekk ñibbi sa kër ci sa ci jàmm. waaw comme comme comme nii nii open press mel rek damay ñaan yàlla ñun ñëpp ñu mobilisé wu génn ñun ñëpp ñu mobilisé wu génn tigé yi incha allah dinañ ko récupéré ko fii nii képp ku bëgg tigé boo ñëwee fii incha allah di nga ko am incha allah rabbi waaw ñu jàppale suñu bëre ñu def comme nañ doon def. ñu fàttaliku suñu diggante ak Pape Mor ñu dogante suñu papa fàttaliku suñu diggante ak Paul Maurice yooyu yëpp ni gars yi doon génnee masse ay genre yëpp. mais combat combat bi tax say adversaire yëpp doon na daw mooy diggante ak Jaguar. nee ko fàtte bés bu waaw làmb boobu dafa am fu ma jóge woon moo tax. ba pare ba pare sama mbaa particulier dafa dafa ma forcé combat bi ne ko da nga ko da nga ko jël par force parce que boobu noonu équipe bi ñëpp dugg nañ ci gala man mel na man maa fa nekkoon te bëggul loolu moom moom dafa bëgg mbër yëpp di bëri léegi nag comme gars yi jël jël nañ avance man jëluma avance mu ne da ngay jël avance par la force loolu war a ma dugg si kalaaf boobu ak mer waaye ñi ma ba pare delluwaat di bëri ak ñooñu da ngay xam parce que boo bëri ay lees de ay saako joor ah ay médul xule ñooñu nga bëri ak ñoom ba pare wëlbati ko waat di bëri ñoom ay ay ay ay wulli bëri ñooñu noonu day mel ni da nga am da ngay jóge si kii da nga wàcc di nga diis di ñëwaat si un quoi waaw non boo ñëwee si écurie bi sax ñu booy jox la ko booy ñëpp jox naa ko booy yëpp waaw. ah. waaw comme looloo tax sama yàkkamti nii parce que tey jii nii lii ñun nii neexuñu parce que da ngay gis nii kay ñun nii suñu mbokk policiers yi tey jii nii nga xam ne tey autorisé wuñ ñu ko woon yàlla xam na ko ñoom ñu may dégg waaye buñ ne Tidiane mooy def open press rek dañ ne carrément nañ ko bàyyi mu def open press parce que wonewul loo xam te ne moom mooy loolu noonu kon may ñaan suma rakk yi suma mbokk mbër yi ñu defaraat làmb parce que tey ñu ñoo ko moom parce que olof Ndiaye day wax ne nga mujjee pësu mu réer loolu gàcc doy na ko parce que suñu papa daa am lu ñu fi tege suñuy mag suñuy baay ñu teg teg ko fi suñuy maam ñu teg ko fi kon ñun buñ mujjee pësu mu réer waaye ba loolu laay ñaan rek ngi di ñuy sama sama mbokku euh, takku der takku der yi du baax parce que tey bu leen neexoon ñu duñu ab du am parce que ku xam na tey jii nii si kanam dina am loo xam day yëngu léegi te du neex ñun Sénégal lañ am nañ ñaan yàlla lépp dem benn ñu comme li maam tabax doon wax rek ñu tàppe xol yi